ku dëgër fit la moom itam Maodo ndax léeg-léeg mu wax lu nga xam ni du xam kan ciy tënku ku dëgër fit la waaw moo tax tabarkal la philosophie daf nu yàq philosophie am moo nu yàq ndax ragalu nu dara dara ci kaw suuf ndax yàlla ak jëmmam philosophie am dafa doy waar Sëriñ lu nee na dama toog ak moom ñuy waxtaan mu ni ma gis nga rekk dinga toog ak nit di waxtaan ak moom mu di la tontu ngeen di yëyandoo groupe

na na muy demee te itam gëm naa ko wante awma fu ma teg ngëm gi ndax ci karama rekk laa koy mëna teg te Maodo gëmul karama gëmu ko xam na ni lu nekk la mais du ci tabax dundam te man ci karaama rekk laa koy mëna delloo te moom nag gëmul karaama walla bu ko gëmee du ca tabax dundam kenn mënul fexe ba mu tabax ci dundam mbiram kenn xamul lan dinaa di wax ni looloo tax sëñ Babacar si dëgër bopp waaw am na koo xam ni ku mu yar foog nga dëgër bopp waaw yàllaatee ma bàyyi waaye at bu jot maa ngi ci di xalaat at bu jot maa ngi ci di xalaat di jaaxle rek nit kii di waxtaan ak yow di lekkandoog yow di naanandoog yow te ci suba la xëy voyagé dem barsax pour rencontrer fa ay saalixiin bu bu bu dul karaama duma ko dégg te ki ko wax gëmul karaama ma di ca dem di ca dem ba sog a gis bunt ba ndeke jafe ga demewul noonu formation ba moo jafe ci cadre formation lay doon waaye du doon ci kaadaru karam te kenn mënu ko weddi ndax Mor Jama mi wala Jean Pierre mi juddu ni wee ñu nampal di dundal ba mu fer dundal ba mu a dem ko commission d'orientation yi ñok mom ba duggal ko ci bir kambu science mu nek ci ba inventer lo xamni ni kër goo dem tay fekk ko fa te génnul cadre ilma ak mantiq setal lolu génnul cadre ilma ak mantiq waaw ki nga xamni nak dañu ko former ci cadre bu nga xam ni diggante ruux la ak fitra kooku fu fu mu mënul amul wante du karaama formation rek la looloo tax nga gis ci ñoom kuy seetaan nu dëjëm di nga gis ci ñoom kuy seetaan dëju boppam tàgge nañ ko ma nga taxaw di xool ñu koy tàgge ma nga bër sax déjà ñu ngi koy sang mi nga xool ñi koy sang ñu ngi koy sang mi nga xool ñu koy sang ñu ngi koy ñaanal mi ngi xool ñi koy ñaanal ñu ngi koy suul mi ngi xool ñi koy suul fekk na ma nga moom ma nga bër sax moo tax yëf yi ni ñu ko foogi demewul noonu te barzakh nak ay station yu dul jeex la waaw ko soxla bu fekke sa formation àgg na fa ko soxla man nañ la wax man nañ la wax fan la nek ci ban station seetal loolu waye ñun façon biñ ko déggé dafa teer a teer bu mu ëpp te boobu doxul